démb en communiqué du conseil des ministres le président de la République Macky Sall dafa procéder à la convocation du collège électoral loolu bu amee ça veut dire que finito xaala gasi waaw euh, le processus euh, il est il est il est lancé Ablaye Sow que j'ai invité ici d'ailleurs me faisait remarquer que le président il avait jusqu'au 6 pour le faire mais il l'a fait peut-être une façon euh, de de de taire euh, toute cette polémique autour d'un possible report une façon aussi de rassurer euh, les Sénégalais et la communauté internationale alors vous parlez toujours de report ou pas. Euh, Maïmouna maa ngi lay sant ci émission bi euh, parce que Sénégal léegi wax fi dafa jafe moo tax sama wax bareetu boo waxee nit ñi dinañu interpréter ñi dagg yóbbu ñi dagg lu leen neex yóbbu ba mujj gi man. li nga wax day réer. ci wax yi dafa am solo. Hmm. li ma wax ci français laa ko waxee ni may waxee français nag laay waxee wolof heureusement euh, boo dégloo bu baax par précaution ngir sama wax bañ a nit ñi bañ a laam-laame benn yoon. li ma wax dama ni journaliste bi je m'interroge dama ni ko je m'interroge sur les conditions yi nga xam ne maa maanaam maa ngi laajte ci nu nga anam yu nga xam ne ci lañ war a defee élection élection bi dinaa ci dellu si ñaare bi ma ne li may wax ni président àndu ci loolu wax naa ko ci émission bi ba mu leer ma ne président àndu ci ndax président dafa ne benn at ñaari at wàññi benn at yokk benn at ñàkkul ñoo xam ne tam nañ seeti ko ne ko ah dëkk bi ni mu mel kat na ñoo xam ne ba tey ji may wax ak yow lu ñu gëm ne président Macky Sall am na ko fi ñëw wax ko ci sa émission te du dof wax ne eh, situation bi ñu toll war nañoo créer condition yoo xam ne président mi nga xam ne dafa wax ne dafay dem war naa mën a toog tuuti ñu gën a réorganiser mbir mi nun euh, su ma juumul mën naa ne jàll nañ ci ñu ngi ci premier décembre jamono ji juróomi at ci gannaaw ci la ñun la ñu investir sunu candidat. Euh, même en 2012. ci la ñu décembre aussi la investir sunu candidat. parce que mhm. dañu ko doon tombeel même semaine bu ñuy fêté anniversaire u APR ci lan doon organiser sunuy candidature sunuy investiture euh, léegi nag man xalaatkat la euh, xalaatkat la mooy sama vocation bi njëkk laata may def leneen dama jàng philosophie interrogation laajte laa njëkk jàng balay may jàng tontu te lajte boobu moom mooy sama métier moom mooy sama liggéey ndax li ma def muy journaliste yi tamit laajte la rek laajte xam xamale euh, léegi nag ma jàpp ne ki nga xam ne moom la ñu yor moo ne ci boppu réew mi waruñu koo tëj ci benn choix bi ñuy dem nga xam ne war naa wax man maa ne ko président da ngay liggéey bañ a installer débat ndax dangay ngay présenter wu wala déet am na ñu ko séddee Mame Mbaye wax na ko publiquement il y a ans ma ni ko nga bàyyi ba occasion solennelle bu nga xam ni mooy le trois avril nga wax nga seet di soog nit ñi booba ñépp prononcé wuñu ñu ñii ne d'accord nañu ñii ne d'accorduñu ñii ne mën nga ko ñii ne mënoo ko nga apprécier situation bi nga seet yow ci sa bopp nga wax boo dee dem fekk décider nga dem nit ñi jàppale la boo dul dem nit ñi xam ne demoo au fait temps boobu dafa retardé ba le trois juin. 3 juillet 3 3 juillet. ndax am na mais yow 3 avril ban nga ko doon wax. 3 avril 2023 bi. même année nga ko waxoon mu wax. même même année. loolu dañ cee dañ cee waxtaanoon. du du secret bi may révéler parce que dégg naa Mame Mbaye wax ko ci ci ci émission euh, pour man président njiit ak kuy décider toujours dañ koy ubbil des fenêtres et des champs pour mu mën a décider kenn du ko enfermer ci lenn parce que de la coupe aux lèvres lu ne xaj na ci lu ne mën naa am donc nun sunu rôle mooy ubbil. ouvrir des perspectives pas seulement d'ailleurs pour président de la République waaye aussi pour Sénégal parce que Sénégal même bu ñuy élection même bu fekkente ne dañu wax ne mësunoo dàq élection mësunoo reporter élection Sénégal jar na ko loolu laa wax ci émission bi ma ne ndax Sénégal jaru ko journaliste bi ne ma ah bon ma ne ko je m'interroge lii laa wax donc président rôle mooy la calendrier républicain fu mu toll ci pas-pas ci pas-pasam mu war koo respecter am dogal goo xam ne code électoral moo ko wax ne war na koo dogal mu war koo mu def ko une semaine en à l'avance une semaine wala nu mu mën a demee président dafay tukki donc buy tukki sañ naa ni ministre de l'intérieur ana texte bi ñu doon préparer mu ne ko mi ngi nii mu ne ko damay tukki guddi damay tukki maa ngi dellu si fileeki fan waaye naa ko signé bala maa dem loolu président mi ngi ci rôle encore une fois président Macky Sall bi muy wax li ci gën a am solo mooy damay sàmm sama kàddu dama wax ne damay dem damay dem àdduna bépp sant sant ko ànd àdduna bépp remercier ko ci waaye man en tant que sujet de droit en tant comme libre nga xam ne ma la plus importante de li des libertés mooy la liberté de penser et la liberté d'expression xanaa sañ naa même bu président waxee ne buggul lii wala d'accordul lii man ma interroger wu wax ne est-ce que lii xalaata wala du xalaat mais mais nekk dëkk boo xam ne nag may mun a Sénégal la tudd mm. Eh, dafa am ñaari <laughs> dafa am ñaari baat yoo xam ni dañu jege woon lool bay laalante eh. ñaari baat gëm ak gëmm dañu jege woon te bay laalante Sénégal nag du nu gëm dañuy gëmm man na gëmmuma mais Souleymane damay xool di interroger léegi nag mais mais Souleymane xam nga sa interrogation yi xam nga yow da nga sànq bàyyi nga nga ne président de la dañ koy tijjil ay boulevard ñu koy jox ay possibilité moo tax bi nga ñëwee nga ne nga même si da ngay interroger wu tout de suite suspicion dafa dafa dafa dafa dafa installé yàlla moo ko teg waaw nattu la cest à yàlla teg euh, sénégalais yu bari yaa ngi ñu ngi jàkkaarlook tableau bi ba ma ne woon tableau bi benn bind bi Euh, c'est pas carrément du boulot dama naan dama naan am na lu mu am am il a quelque chose derrière la tête <laughs> <laughs> c'est ça votre problème donc quand vous vous vous, vous revenez de nga jógee bitim réew ñëw nekk ci réew mi lëmbe jékki-jékki nañu est-ce que waruñu reporter euh, bi mais tout de suite les gens kii ndaw bu ñu yónni la kii dafa nekk di tijji ti di di tijji boulevard am na ko ma tudde naar bu ndaw sax ma ne ma ne ko naar bu mag laa nag <laughs> nekkatoo naaru ndaw la nos suspicions sont euh, sont sont sont sont bugguma ne légitimes mais dafa am lu lu tax suñu suspicions yi fondé même man j'ai dit eh le gars il parle jamais par hasard non kii ñii ñii dañ bëgg a reporter présidentielle bi non je ne parle jamais par hasard waaw déedéet donc vous confirmez euh, je ne parle jamais par hasard waaye nag euh, dama cultiver fa ma ne ak ña ma àndal ñu nangul ma ko une liberté de pensée et parfois même une liberté de critique ñu nangul ma ko euh, nangul nañ ma aussi que ni en tout cas wàllu politique euh, xam naa ci xam naa ci donc su ma waxee nit ñi déglu et comme ni nga ko waxee jox sama kàddu dimension boo xam ne man dama dama dem ba xalaat ne xanaa xëy na noppi ma noppi nag moo gën parce que benn émission laa def ma yeewu vingt une ñu naan wax na lii wax na lii wax na lii. mais parce que dañ leen doon soupçonné. léegi euh, soupçon amu ci soupçon waru ci am. lu sax waru cee am. xam nga soupçon waru cee am. dagg bi yee jóge Paris ñëw du ñu soupçonné. saa yu ma daggee bi yee ñëw saa yu ma daggee bi yee ñëw nag may mun a saa yu ma daggee bi yee ñëw. bu ma ñëwee wax au moins y a un intérêt parce que débat du yàq dara du man maa njëkk a wax benn opposant moo wax bëriwul débat. Boubacar Camara. waaw Boubacar Camara moom dafa def tout un argumentaire ba ba ba ba ba la mise en œuvre de la transition. Ouais. non man man nekkuma woon ci transition man nekku moon ci transition euh, nekku moon ci loolu mais bi ma ko waxee juriste yi jóg nañ wax. kan wu président euh, enfin en tout cas ñi ànd ak Amadou baax am na ñu jóg wax genn wax mais débat boobu du yàq dara il faut ñu nangu Sénégal ñu nangu ne réewu débat la réewu démocratie la ñu démocratie nag lu koy dind dundal mooy xalaat yu wuute il faut ñuy am nangu xalaat yu wuute. xalaat yi dafa war a wuute mais soubassement bi dafa war a conforme au cadre euh, des principes démocratiques et c'est comme le débat euh, sur ndax président day dem am du dem vous nous faites adopter un référendum ñu apporter les changements ñu jël la question du mandat et de sa durée ñu jël ko ñu tëj ko frappé de la clause d'intangibilité yéen ngeen gaj sénégalais ngeen dem élection sénégalais yi renouveler leur confiance au président de la République le soir de l'élection du président de la République on se à nous dire non deux mandats de cinq ans benn mandat de cinq ans c'est-à-dire on est en république on a une constitution et vous installez le débat. Ah, ñu ñëw man de yaa ngi may ji. yéen non majorité présidentielle de de de manière générale ñu ñëw ñu ne dañoo war a dem élection élection présidentielle kenn mënu ko kenn mësu ko reporter dans ce pays là. réew mi tàkkul administration mu ngi fonctionner douane police euh, nu mu tudd euh, impôt ñu ngi def seen liggéey nit ñaa ngi liggéey réew mi am na jàmm nekkuñu ci juin deux mille deux mille deux mille vingt deux deux mille vingt trois ngeen bëgg ñoo indil waxu report parce que yow vous vous estimez que euh, peut-être votre candidat n'est pas n'est pas n'est ah, pas prêt. ah déedéet loolu moom boo bëggee mën nañ cee ñëw. di ah, dinañ ci ñëw. Ah, c'est-à-dire yow en tant que intellectuel mënuñ la nangul Souleymane que ngay ouvrir débat te soubassement bi du respectueux du cadre des principes démocratiques. c'est ça le problème qu'on a c'est du cadre des principes Comment démocratiques. bi ma ko waxee bi ma ko waxee euh, dem am na ñoo xam ne ils ont interrogé la faisabilité ma ni leen on peut dégager un consensus ci mën nañoo dégager un consensus la classe politique en général. et heureusement d'ailleurs parce que euh, wax ji dina ñëw. waxu lan report bi. Eh, ñii ko gën a bëgg du ñun de eh, ñii ko gën a bëgg ñu ngi ci opposition bi nun sunu candidat comme ni ma ko waxee c'est-à-dire que ku am candidat bu mel ne Amadou Ba euh, may man dama yéene sénégalais yi. Amadou Ba. dama leen non nga ne ñi ko bëgg gën a bëgg opposition bi. waaw ñoom ñoo la wax ne ñoom ñoo ko gën a bëgg. <laughs> bëgg report bi. <laughs> du dégg nga benn opposant ah du dégg nga benn opposant euh, Abdourahmane Diouf moom nee na amul report. Eh, ñi ko gën a bëgg ñu ngi ci opposition bi xam nga man euh, damay def dama bari lu may wax ak opposition bi. Euh, dama bëri lu may woo léeg-léeg ñoo xam ni bokkuñ ci opposition waaye ay acteurs acteurs sociaux la ñu ay médiateurs di waxtaan ak ñoom ci naka lañu ñu war a def pour Sénégal gën a am jàmm naka la ñu war a def pour jàmm de jàmm sax ci réew mi naka la ñu war a def pour que conflit politique yi nga xam ne day mujje xeex ak reyante ñu indi ko ci lu mel ni mooy diisoo waxtaan bu ñu amee ñu d'accordul d'accordul ci ñu reporter élection yi ñu ne d'accorduñ ci moo tax man yenn sortie dérangé wu ma man maa wax ne man Souleymane bu fekkente ne dañu war a diisoo ñu génne une loi constitutionnelle autonome maanaam assemblée nationale comme ni ñu ko defee woon defe naa 2006 ñu voté au, au à la majorité qualifiée au trois cinquième ñu ne ñun lii la ñu bëgg nangu nañ ne élection yi. on ne à moins de trois mois des élections léegi de la de l'élection présidentielle am na yoo xam ni ñii parewuñu ñii àggalewuñu ko ñii jeexaluñu ko ñii am nañu tension bu ñu d'accord ñu def ko bu ñu d'accord xalaat bi doon xalaat rek boo xam ne dañ ko émettre ñu jàll ci leneen mais mais mais mais li ma du li ma li ma li ma li ma mënut a xalaat li ma li ma mënut a nangu mooy ñu enfermer ñu daal di ne lii war nañ cee mun a wax war nañ cee koo mun a xalaat lii mënuñ ko à partir du moment où man ma ne man ki nga xam ne mooy njiitu réew mi parce que moom rek moo mun a saisir assemblée ci sujet boobu président la république rek moo mën a saisir assemblée constitution bi moo ko wax ci do ci loolu président rek moo mën a def am un projet pour que pour soumettre une ñu ñu assemblée nationale ñu daje reporter élection. et nous autres léegi kooku nee na d' accord. léegi mais mais mais à part euh, heureuse et heureusement euh, président de la République a a a pris la très bonne décision toppul.